toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. waaw deuxième édition bi moom liñ ci mën a xaar bari na lool te rëy donc comme activité yi ñu ci war def ci ñetti parce que ñetti fan lay nekk foire bi 10 11 12 novembre place souvenir lañ koy defee am nañu fukk ak juróom benn activité yoo xam ne tey ji moom la ñuy teg ci jour foire bi te loolu noonu maanaam ñi nga xam ne tey ñoo bëgg euh, dugg ci monde entrepreneuriat te amuñu ay moyens bu ñu ñëwee nous fait des structures financières qui sont sur place avec des stands gratuits Nous orientons donc nous leen ba financer ces projet. également aussi nous des jeux qui intéressé des jeux qui éveillent les enfants comme vous le savez les gens utilisent l'internet les utilisent l'internet mais on peut leur montrer que vous pouvez jouer mais pour avoir des compétences pour être éveillé aussi donc madame ndaw nous sommes ñëw foofu ñu jouer mais ce que ci li ngeen di fo mën ba tax na bu xam-xam bobu non mom lañuy magalé am culture bi ba bu démé ba ben certain âge bi day nek lool nek sen dret donc foire bi dafa exceptionnel parce que am ci ambassadeur bo xam ne wax DJ Boubs ñoo xam ñep ñëpp xam nañ ko Sénégal Boubacar Diallo mom moy ambassadeur événement bi cette année ci donc 3 jours mom sax ne def benn conférence business wax jaar-jaaram wax parcoursam am invité nit ñi former nit ñi wax nit ñi donc lan moy entrepreneuriat également aussi conseiller donc rendi mom moom euh, yaakaar naa li ñu euh, foire bo xamni ne bu mucc ayib lay doon ku ci ñëw di ci gis sa bop té ñun aussi euh, pare pour loolu aussi di xaar 400000 visiteurs donc ci jour boobu non donc japp naa ni euh, ren moom euh, foire mom dana xumute dagal macha allah. waaw suivi mom ci lañ dëkk sax parce que chaque semaine dañuy jël ñetti fan ci semaine muy mardi jeudi ak samedi di def ay formation gratuite c'est-à-dire ndaw ñi dañ leen wax ne ñëw leen bu leen fay dara bu leen ñëwé ñun dañ leen di former gratuitement. wan leen nan la ñuy defee entrepreneuriat nan ngay def ba am sa structure formelle nan ngay def aussi ba moo nekkee secteur informel bi sax nan ngay def ba mën a dem secteur formel bi aussi former leen ci li nga xam ne mooy xam-xam parce que entrepreneuriat du cadre damay jug rek damay def entrepreneur foog nga am xam-xam bi ñu xam-xam boobu noonu la ñuy def seen bopp ba pare bu ñu ko defee seen bopp ba pare ñu wan leen ne même boo ko amee ci lu ndaw mën nga ci démarrer moo lay jox 100 jox la 10 000 jox la ay millions donc ñun moom ci formation ci la ñuy yëngu pour jàppale leen wan leen yoon bi ba ñu mën a am am li ñu bëgg bu soobee waaw xam nga tey ji xëyu ndaw ñi moom ku ci euh, dox rek ñun dañ lay encouragé xam nga état bi moom tamit mi ngi def lépp li mu mën pour euh, jàppale ndaw ñi tamit pour ñu xëy mais ñun tamit suñu côté ay structure privée lañu mais ñun tamit ñi ngi def lépp lu ñu mën parce que tey ji nga jël euh, juróom benn weer ñu presque employé te 200 personnes ñoo xam ne tey ji ñii dañoo am stage ñii ay contrat CDD lañ CDI ñi nga xam ne stage découverte ñi nga xam ne tey ji dañoo nekk ci école yi te mu bëgg xam nan la milieu professionnel di wan ñun dañ leen a jox opportunité boobu noonu nek en partenariat avec les différentes écoles ne jox leen ñu seen élèves yi ñu licence 1 licence 2 licence 3 ñu former leen te ñi ngi jàng en même temps won leen ni carrément boo demee ba bëgg liggéey day nekk benn continuité donc yaakaar naa ne moom xëy ndaw ñi moom képp ku jug bëgg cee nekk bëgg leen jàppale ñu pare ñu aussi pour nekk à à ses côtés. toute toute l'actualité à temps réel à temps réel sur Référence TV Référence TV la chaîne de l'innovation